ay mbokk jee mbën ma waas ca géew ma waaye bi yoon ki sàjji lamb ji mooy le numéro un Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mbokk yi kii moo woote bisu le 31 octobre 31 octobre nag mbokk yi bés la ci biir bés yi ndax dañoo boole xale yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci seen génération combat bu mag bi Ada Fass ak Tafa Mbër mbokk yi ñu tuddee ko ki nga xam mooy jeu technique l'ancien lutteur ki nga xam moo bàyyi lamb ñëw ne day jàppale lamb fan lay xewee ñu ne ngéwél de boole kook armée bu ngéwél laa ilaha illallah mbokk yi ndaw combat bu rëy yow mi bëgg a seetaan bi bu la ko kenn nettali dawal gaaw seen affiche point com mbokk yi nga jënd fa li nga xamante ne moom mooy sa code yi kër mbër ba ci biir bi dara du ci rëcc image dina leer te it dana mucc ayib qualité bu am solo lañ di jox mbokk yi Fallou Ndiaye le numéro moo dëkk ak ci bisu le 31 octobre di bëgg leen teg xamal ni lamb ji dina moom la bu dul moom eh dara fi yëngu cey numéro un ñëw salaamaaleykum suñu mbokki internet yi amaan mbégte contentement yee ñuy suivre sur Kewel Info kon diñ koy defee rek à chaque fois jotaayu làmb tey nag ñu déplacé wu ñëw si Pikine tare bu bees Afia ñëw seet si ki nga xam te ne moom mooy Malick Ndiaye 37 fu gannaaw ba mu ak Bou Siteu ñuy félicité bu baax a baax Bou Siteu di félicité waa ren DKR muy Alain Jumbo Pape Sarr leen wax dëgg yàlla wane ngeen yoon bi bien vrai que ne ba ngeen ñëwee yàggul mais wax dëgg yàlla di ñaan yàlla rek yeneen journée yi gën a neex Malick Ndiaye 37 fu nag dañ koo seet si suivre à travers Kewel Info Malick Ndiaye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay maa ngi leen di siyaar di rafetlu seen teewaay bu ngeen bàyyi seen lépp ñëw ba fii di bëgg a def ak man émission maa ngi leen siy bëggee bu baax a baax di bëggee sama waa koñ waa di bëggee ñu ma bëgg quoi mooy suñu waa koñ ko waa bëggee waa Pikine gi yëpp comprendre fu ma yow waaw noonu la demee nag yow laay Mady Ndiaye ñu gis waa Rent DKR dañoo tëgg sa combat ak ki nga xamante ne moom mooy Bou Siteu mën nañoo wax ni mat na deux ans combat bi Covid bi moom moo ko yàqoon. Mm-hmm. sa préparation yooyu nan la demee woon première préparation. sama pré préparation bu bu ñu njëkk a préparation combat bi doy na waar quoi ndax parce que loolu metti na quoi dafa metti trop trop trop trop trop trop. man de xaw ma lan même fu ma nekk man ak lu mu mënta demee rek man loolu dama koy xeex pour mu jóge fii waaw. lu may xeex mooy mën la samaay nit pare combat ba jour kombaa bi ñu ne combat bi yàqu na ba pare ku ko yàq ku yàq combat bi kon kon daf leen war a fay loo xama daf leen war a fay lu ñoom mbëri lu ñu def seen combat. ku bi ministre bi moo ko yàq. waaw ministre bu ko yàq nag waroon na fay mbëri bi yàqu ko Covid bi. dafa demoon ba benn instant corona bi ñëwaat. waaw pour nag ñun ñëpp il faut que ñu fagaru kan moo arrêté kan ne arrêté leen. kan moo ne arrêté leen. waaw ministre bi moo ne arrêté moo dégg naa moo ne arrêté leen. Hmm. am déet ñoom ñu arrêté mais bu bu demee noonu ñoom ñooñu ñu ëpp doole fukki yoon ak juróom ñoom lu ñu yor ñun yoruñu ko ñun ay doomu baadoolo lañ comprendre fa yow dañuy avant ñoo am dañuy liggéey ba sonn. fu nekk ñu dugg fa comprendre ma soo am duñu am ci ñu combat tamit ñàkk ci xaalis bu weex tàll fu ne ñu dugg fa. premier combat bi. premier bi li ma si investir man na ay 1 million 800. waaw. 1 million waaw mën na ko. kan moo ndax parce que ñu ma jàppale bëri na Amadou Diagne may na ma 500000 Sakho Diop may na ma 300000 ak ñeneen ak ñenen ak ñeneen ak ñeneen booy dajale seen munin ba may xaalis bëri ñu jox ma ko tamit am naa ay jàppale yu may jàppale affaire ma dug dox dugg si àll bi dox samay combat di ñàkk si xaalis bi wax tàll mais bu demee ba jour jour bi jot yaa ngi dégg fa may wax yow mais tamit lu ko yàq rek war na après bu ñuy tëggaat combat bi war na sóorkat na ñi maa yàqoon seen bis te nguur dafa bëri doole kon nguur moo ñu ëpp doole kon ëpp doole bu ñu ëpp doole dañu war a jàppale ñu mbëri ndax parce que dañuy daj lu metti dañuy am combat ñu fay ñu xaalis ñu retourné loolu la ñu fay teg ci lu gën a duubal loolu ak duubal ak loolu bokkul ak say mbokk fu nekk ñoo ngi fay dugg fu ñu xam ñoo ngi fay dugg préparation combat daa métti waxatuma laa combat boo xamante at nga ko préparé boo ba mu ëpp at sax waa deux ans nga préparé ko deux ans mu métti lool di bëgg di dundal sa bopp di dem entraînement di fay saal loolu yëpp boo ko dajaloon ñaata lay doon xaalis bi tal lay doon at nga ngay dugg saal di entraîné di dem diin di dem fépp comprends pas yow doo yoree tamit essence ngay jënd di ko sol sa engin di dem entraînement ji loolu yëpp combat bi moo ko moom moom moo ko laaj. nañu respecté la bokk nañu respecté. respecté bi mooy lan yërmande fa laay waxee quoi respecté bi mooy yërmande yërmande bi mooy lan ah man de arrêté naa lii tey jii ñi ñoo tëggoon ak ñii ak ñii ak ñii ah man maa tax man la sama seen journée ñu ñàkk loolu loolu ñu su fexe woon loolu loolu lépp lépp lépp war na moom xelam war na mën a xalaat loolu. xale yu ndaw yi ma yàq seen journée bu yoroon bëree la vingt cinq juillet noo comme que léegi maa ngi leen di joxaat dat non kon war naa gëstu xale yi ut lu ma teg seen loxo. lan moo waraloon loolu Bou Siteu moom cëppel maan la mooy li ma koy wax rek moom cëppel maan la ndax parce que du ñëw man ak moom ñu teg lu ñuy teg ba pare. man moo ma woo téléphone na ma gaan dama am benn émission yaa ngi dégg fi may wax ak yow ma ne ko émission fan la mu ne ma euh, Colobane xaw ma xaw ma fan. yaa ngi dégg ma yow ma ne ko amul benn problème mu ne bu ñu demee pour ñu kaas pour promoteur yi yokkal ñu quoi ñu dem ñu ñaar ñëpp ñu kaas loolu tënk loolu nag ku ñu fayul xaalis yu ñu bëre moom mu jaar suuf bëre moom la man lijjanti wu ma ko man sama côté laa lijjanti. mais moom ba muy jaar suuf la. non non. Oh. doowu ma. Ah. boo boobu moom ma fekk fii. ok waaw. ba nga déggee ba ma déggee ne Bou Siteu day bëre lan laa réagir. waaw tamit raasuma dara damaa xam ne moom warkat la rek. li tax lan moo tax yow nga ni doo bëre te yow nga siñe contrat ñu fay la xaalis bu weex tàll Malick Ndiaye nga doo bëre. non loolu nañ ko fàtte. non dañuy parce que tamit. non oui ma non parce que xam a tamit yow Malick Ndiaye da ngaa bañoon. lu passé passé na mais da ngaa bañoon ne doo bëre te da koo tegul ci yoon. dëgg la mm-hmm. non non bu la wax tegu moom suñu yoon. bu ah. fekkee cadre contrat rek sama contrat ak ñoom dafa matoon. loo xamante ne bëree woo ko nan sama mais tamit dëgg la mais tamit ñun du ñàkk xaalis bëri na la sama ay pare suñu combat ba ñu ne ñu ba yàqu na ñu ne luñ yàqule nag. Euh, mais que moom moom promoteur bi moo yàq combat bi. promoteur bi bi. kon nag loolu ba mu des ba ay benn jour ngay soog a ñëw. waaw loo rek atara nu koy waxatee mënu ma ko wax sax xam nga la. stratégie waaw waaw noonu la fa demee. stratégie dafa def la nax parce que toog nga Mbàkke entraîné woo. te ñëw nga bëre. dëgg la loolu yëpp dëgg la mais loolu yëpp man du ma ko du buusita du ale du. du jumbo du buzz lépp Pape Sarr la. Pape Sarr lan la parce que man daf ma koñe. lan la ma koñe comme sa yow yaa yàq suñ journée yaa njëkk wax ne yow sama contrat maag mbër yi eh, jeex na ba ay Laurent Ndiago am fit top sa ginnaaw tamit naan ay seen contrat jeex na yow bu dolli mbër yi doon am dinañ dolli mbër yëpp ba mu des yow. loolu la ma wax. ma ne ko man bëreewu ma. yaa ngi fu ma yow ak ak leneen ak leneen for nañ ko si weewu béy mais jarut wax. Ah, tey bu fekkee Pape Sarr ne la yaa yàq suñu journée. Mm-hmm. parce que Pape dafa ñëw fekk leen yow nga dëkk Pikine mooy mu dëkk Pikine mu jël avance jox la ba pare xam nga mën ñëw wax ni moom euh, dafa am ci lu mu duggoon loo xam te dafa amoon ci yéen yaakaar mais tey bu fekkee da a bëgg a yàq journée jàmbur tamit du ko neex Pape Sarr tamit xam nga dafa nekk nit koo xamante ne ndeysaan bugul buggul bugul ah, defet moo tax tey peut-être mu réagiré noonu rek. non non warul réagiré noonu kon yow ba nga ko invité mu taxaw ne bu Siteu yàlla na ko Malick yàlla na dóor Malick Ndiaye mu daanu. kon yow nga ne ko kat ah Pape bul wax loolu ndax parce que yaa ak Malick a bokk dëkk Pikine xam nga waxoo ko ko kon tey jii boo bëggee ñëw naan ma maag Pape ak lu mu daj. ak kii nii yéen a bokk Pikine te Pape Sarr après déggoo li mu expliqué. Hmm. que ni yéen ñëpp ay que xam nga ni Malick Ndiaye 37 Pikine la dëkk Pape Sarr Pikine tax bëggoon nga ñëw bëre. ak lu mu mënti demee moom léegi juum na. ndax bëre lañ bëggoon te def naa ko xam nga moom fa la amee dëgg li mu wax fa la doon amee dëgg si man ma bañ a bëre. yow da ngaa bañoon doo waaw damaa bañoon ni di ma bëre mais après man maa nanguwaat ne damay bëre. ba mu desee deux jours la nangu. ba mu desee deux jours laa nangu. Juge Mbacke. te combat bi man parewu ma ko. te combat man parewu ma ko te man gëm naa ni man la samaay lu ma ko paree man gàllaaj jàpp ma mu yëg naa sama bopp xeex naa bëre naa. pare woo combat bi da ngaa bu Siteu. non non li nga jàpp ne doo bëre. demewut noonu de damaa demoon ba jàpp ne man du ma bëre. ndax parce que. parce parce que avant un mois. màggal gi samay mag laa fi nekkal jëwriñ sama témoin la kii toog Léopold sama témoin la Pasoulay sama témoin la Moussa Ndiaye sama témoin la. jëwrin ci boppam Pape Sarr fii lay fréquenté mais bu ñëwee fii jëwrin ak Assane Kébé dañ naan ko gaan Pape Sarr waxal ak promoteurs yi ñu yokkal ñu yot teg loxo ma ñu teg si loxo Malick Ndiaye dara pour mu mën a pare combat am après màggal gi avant un mois ñu ñëpp wax nañ ko ko Pape taxaw fii di jaay maanaa jaay titre di jaay ma tëgg làmb moom courtier la. mais même bu nekkee courtier tamit tey dem na benn instant lépp moom lañ ko jox. waaw lépp moom lañ ko mooy tëgg mooy waxaale combat kon kooku kay du courtier. waaw mais courtier la. courtier la. ndax parce que moom moo taxaw ne Malick Ndiaye yàlla na ko buusi te dóor mu daanu. Sénégal Ndiaye ñëpp seetaan ko gisal ko seen bopp. bëggoon nga ñëw bëri si rek. stratégie waaw déedéet kon du ko defee noonu. non yow yaa ngi ni teg nga sa stratégie pour ñu dolli la pour nga bëre sëñ bi xaaral yaa ngi ni teg nga sa stratégie pour bëre ah? hmm. kii maa ko jëli kii maa ko jëli dernière minute man maa ko jëli te bi ma avant ma koy jëli dama ànd ak Pape Sarr ci bi ba pare wan ko Malick Ndiaye doonul kuy yàq làmb Pape Sarr man bisam bi maa ko publier maa dugg ko ñu buur Siteu génn ko ñu buur Siteu dugg ci mbër yi nga xam ne ñoom ñëpp man maa annoncé bés bi ëlbatiku gaare mennum selu mbër muy Ama Balde moo ma woo man maa jëli kii te bi ma paree ci Pape Sarr Ama li ma woowee wax ju rafet la ma wax ne ma grand Malick Ndiaye bu bëriwul ñun loolu noonu day mel ni sunu defet la man loolu moo tax ma jëli ji Malick Ndiaye mais man ci bésu Pape Sarr laa féete woon parce que Pape Sarr dugal na ma ci làmb ji mënatuma génn publicité làmb ji wax làmb ji déggoo li ma la wax bañ nee suba la moo moom fekk sama koñ moom Pape Sarr jox ma soixante quinze mille maa jël oto luyee sono maa annoncé bis bi déparé sama koñ koñu aafiya fi ma juddoo yaroo fi màggee fi amee fi lépp Malick Ndiaye fekk ma fi juddoo fi màggee fi mu doon sama rakk ma déggoo li ma la bi pour pour Malick Ndiaye. 75000 yi nekkul pour Malick njaay pour bés bi làmb ji ñu mën leen xamal ni man baayu Malick Ndiaye maa koy publier Malick Ndiaye day bëre si Pape Sarr moo yëkkati 75000 am jox ma ma luyee Sano. rectifié na li waaw moom déggoo li ma la wax ñun nekkuñu luy yàq ñun du ñu yàq ñun dañuy defar parce que sëñ bi ci defar la ñu defaree ñun sëñ bi def ñoo defar ku xam ko ñu aafiya xamal ni ku juddoo aafiya sëñ bi defar na la. man Bou Siteu bu fukki Bou Siteu maa leen maa leen ëpp doole. da nga yaa ëpp doole tam Bou Siteu daan na. non non daanu daanu ma si daanu ma de daanu ma de man maa ko daan. vaar lañ jëm. te damay def recours. vaar lañ jëm ko daanee moom la preuve nga bëgg a gis. dañuy dem vaar suba dañuy dem vaar. xaaral ñun de pare nañ dañuy dem vaar ah vaar lañ jëm de. lii lan la lii leer na kii dooru dënn grand. wuy ma. ak sikkim dafa nànk rek. lii la ñuy yóbbu vaar suba. lii la ñuy yóbbu vaar. combat bi maa koy commentaire man man man maa koy commentaire <coughs> xoolal combat baa ngi nii. vaar lañ jëm vaar. <coughs> nañu vaar atte zoom ko ba mu ñëw. nañu vaar atte. combat baa ngi nii. nañu vaar atte. leer na. vaar lañ jëm léegi leer na. leer na ah. Eh, vaar lañ jëm. na leer ñëpp ah. vaar lañ jëm. voilà yéen ñaar nan ngeen léegi déglul ma wax la fii. dama daw andil ko xeex làmb ji mu daw xeex bi saa su ne bu ma koy andil xeex di ko cokkaat si xeex di xeex ak moom day moom day daw day daw bëgg a jaf bëgg maa jafandu man dama ko bëgg a duma ku seetaan lu ma bëre moom démb da ngay xam ne kii dama ko bëgg a humilier te dama ko dama ko dama ko duma daan ko. lañ mais moom lañ jox victoire. mais non arbitre day juum. ko daanee xam nga wuy ma nan laa ko daanee. Bou Siteu dafa daw. ñi daw jàppante mu ràcc ma ràcc ma génn sama benn loxo duraat pompe si faar yi pompe si yi pompe si ba ma xam ne métti na mu daw dëbb ma plaqué ma def rotation dóor ko ans ma def ma def ko ans ba ma ko dooree ans moom moom si moom ci boppam dënnam dafa dal sikkamam sikkamam moo ngi si kaw saaku bi nii épaule am moo ngi ci kaw saaku bi nii moo ngi ni leer ñëpp ah. waaw xam nga ni moom ay man man fan la ma dóor. waaw li waxoon ne Malick Ndiaye dafa xaw na maa rey. gémmin gi yëpp toj na ko. waaw vidéo yaa ngi nii tamit. bam la bam la bam gaynde gu toll ni man. yow gis nga. yow xool ma rek. xool ma. yow dama bëgg nga xool ma. boo ma xoolee nga xam ne man ñemewu ma ñi xoolal dóor. ragaluma dóor déggoo li ma tax de kii dama ko mën ëpp ko doole démb dama koo daan jël bu set wicc waaw xëy na nag ñu ko war a leeral leeral ko ba mu leer naa ñi ñu ñoo ak suñu photo damay def sama recours maa ngi sant maa ngi sant waa CNG bu baax a baax samay papa fa nekk samay nijaay fa nekk maa ngeen ñoo far képp ku leen ay Malick Ndiaye doon woon bëri si da doon wax lu doon neex rek atterrage boobu man man la neex ma dund ko ale maa ngi koy ñaanal ku baax la barki Serigne Touba borom xol bu rafet la wóor na Serigne Bamba ak Jimbo Jimbo moom barki Serigne Bamba lamb ji maa ngi waxtaan ni nii ba mu dem ba dépassé ma mais tamit loolu yëpp damay xam ne damay ma xam ne lamb ji moo ko laaj non Pape Sarr dafa taxaw ñaanal ma ne ma Malick Ndiaye yàlla na ko buusita dóor mu daanu te bu ki buusita maa leen mën eh, bu daa daanu ba pare profité daw yéeg sama kaw comprendre point yow daw arbitre yë yëkkati man def naa la tout pour bëgg a sauver sama bopp pour dem sama waa écurie ñu ñu ñu ñu. la. écurie taay si nga ba dem suñu écurie dem wax ak koo xamante ne mooy la ñang suñu porte porte de parole waaw suñu porte parole écurie bi. yaa ngi dégg fi ma yow ma woo ko téléphone na ko la ñang dafa am sa benn gaan moo conseillé na ma Malick Ndiaye mu ne ma ah. ma ñuy waxtaan si ma ne ko Matar Ndiaye ba combat bi taxawee le 10 woowu ma téléphone wax ma ko comprendre ma yow signé na sama contrat te ma ko accord woowu ma téléphone na ma Malick Ndiaye signé naa contrat bi Matar Ndiaye benn ñu laaj ko suñu suñu suñu contrat nangu ñu ko jox mais pourquoi ça mais maa ngi doon dégg pour ñu naan promoteurs yi ma ne la samaay 550 000 lan ma fay man na maa ko ñu ma fay kon xëy kon moom yaa ngi dégg fa ak yow kon am na. joxuñu joxuñu la comme comme comme. comme que moom yaa nga bañ a joxe kayitu contrat bi kon moom am na luy lu si suuf. ñaata lañ man lu ma jox sama vie privée la. mais 750 000 lu ma jox ëpp na sa xolal 800000. lu ma jox laa la wax moom si boppam rek. waaw ëpp ëpp na 800000 daa baax barki Serigne Mbamba Jumbo tamit tamit daa baax. keroog man ak moom am na fu ñu toll ci wax cadre waxtaan ba mu tàng ba wax ma loo xam ne war moo ko wax mais man jégal naa la. Eumeu sen daf la woo téléphone. Eumeu Sène non Eumeu Sène waaw Eumeu Sène ma téléphone. expliqué ma ñu waxtaan comme renfort moog la njang waaw mu ne ma waaw waxtaan naa ak Bira Sène comme renfort yow ne combat bi gaan affaire la góor rek affaire yooyu quoi man nag du ma la comme renfort yow duma la wax ne la bu bëri ko duma ma la ne la bu ko bëree yow yaay choisir sa bopp quoi comme renfort yow conseil ma lu rafet ma na ko waaw baax na après moog la njang ñu waxtaan si jour boobu nag laa waroon a bind lettre bi pour sama waa écrit dooleel ma. tax nga bëre. kan waaw mais ma déedéet man man maa jël sama coobaree bopp bëree mais Eumeu Sène taxul ma bëree waaw man maa jël sama coobaree bopp ndax mbër lu leer la ma wax nee na ma gaan comprendre nee na ma nee na ma nee na ma mbër combat bi bu fekkee mën na la sama yow yaa yow daal yaa xam sa bopp comprendre ma yow mais affaire de góor la comprendre ma yow yow yaa xam sa bopp mais ma la nga jël combat bi tamit ma la bu ko jël yow daal yaay choisir sa bopp te bañ ci waxtaanee ba tënk ci comprendre ma yow mu coupé téléphone am ma coupé sama téléphone waaw appareil di son bu ma jël sama baay ba mu jote woo na te wuy naa ko si no waa taay si nga wax dëgg yàlla moom ku deeg sa bàmmel sama combat bi moom wéet naa si trop trop xanaa joolaa Jibson voilà comprendre fu ma yow ñaar ñooñu moom comprendre fu ma yow waaw jàpp nañ ci quoi. bañ a wax fa laa fa laa signé sama contrat fa laa signé sama kii. mais am mais Eumeu Sène ñëw na saat mais tamit xam na ne problème day bëri mais man man ñëwut si man dafa ñëw rek romb ma dama yoonam. waa xëy na mën na koo fàtte quoi mais man damay wax loo xamante ne dëgg la quoi waaw lu ma wax loo xamante ne dëgg la mun na koo fàtte mais tamit ndax parce que nit nit rek la mën a doon. ak ambiance lambeek a affaire yooyu mën na koo fàtte bañ ma nuyu wala dara mais moom nii la ma rombee gisuma sax. waaw ah, romb na ma te gisuma affaire yi. yaakaar da nga bëree ba pare tamit. waaw bu ma bëree ba pare tamit sa poulain bu bëree ba tamit waroo ko romb ndax fekk woo kon bëre ba da nga ñëw ñu invité le pour nga ñëw baaxu bu tamit dafa bëre ba pare tamit war nga ñëw sa mbër félicité ko na ko kat gaan lii lii mooy ak lii ak lii conseil ko lu baax affaire yooyu quoi na ko du dara préparé wu rek nga defar sa bopp te man te Siteu daf maa daanut démb man esat ba ma démb man esat dama jàpp ne man maa daanu. ndax parce que dama ko mboot mboot bu ma ko mboot nag ku taxaw fale mooy gis Siteu bu Siteu yaa ngi dégg fa ma ak yow ah, dafa daw ma duur koy hypercule nara dam damu faari mu daw sàcc ma ne daf may plaqué daf ma sàcc ne daf may plaqué ma remplacé ko dóor ko ans ba ma ko dóoree ans dafa teg dënn teg sikkim teg épaule mu ngi nii leer nañ youtube bi youtube bi boo duggee di seetaan sit yu bëri dan lay wan Siteu bu Siteu bi dafa ronron bu ronron bu rouge. kon mooy lan kon kon mooy lan làmb ji takk na suuf comprends pas yow Bou Siteu nag dama ko daan lu leer damay def sama recours. damay def sama recours Bou Siteu xam mi ngi doon wax soo ñëwul sax mën naa jël xaalis waar lañ jëm sax Bou Siteu mi ngi doon wax sax même boo bëreewul sax mën naa yëkkati benn cinquante mille may la pour nga Abdou li dafa leer naa ñu dama ko tëgg mbot maa ngi nii gis nga loxo balaa korosé tëgg ko mbot samp samp gis gis nga dënn bi moo ngi nii tegu dënn bi moo ngi nii tegu tegu tegu tegu tegu si saako bi épaule bi moo ngi nii tegu si saako bi sikkim bi moo ngi nii tegu si kaw saako bi kon lii ji boo doonu jël lan mooy doon jël ah vaar lañ jëm vaar ko mën a mais dafa saltel combat ba pare daw njëkk ma wër yéeg sama kaw comme daa ma yow ma yox mu naan damay saako bi ah waaye man xoolal yëgu ma ko sax yéen ma koy wax nii sax non man yëgu ma ko yéen ma wax nii dóor bi yow kon dóor boo yëgul dóor boobu euh, yëngalu la. bu si tax lu ma gën a jaaxal si bu bu dafa mel dafa xamoon da ngay daan ndax bu boo ko jëlee émission non moom dafa mel daf koo xamoon. dëgg may dama koo jëli déglu ma rek déglu ma. Malick Ndiaye même maa sama question moom lañ jox victoire. ma nangu loolu léegi maa gën sama question. voilà xam nga Bou Siteu dama koo jëli noo ko jaam ñëpp xool. site yi boo duggee si YouTube bi gis nga site yëpp yu yore lamb ji dañ jëw jël bind bu rouge bind ko di wane ne Malick Ndiaye 37 pour daan na làmb ji te Tafa Gueye Max Mbergane Lédé Tigre comprends nga Max Mbergane sama sama baay nga ku la sopp laa ku la bëgg laa barki Alxuraani Karim Max Malick Thiandoum ku la kooku maay mbërëm kooku maay mbërëm kookoo xam Malick Ndiaye kookoo ma mën a reporter ma bëre kooku bu ma reporter ma bëre damay mel ne gaynde ndax parce que Malick Ndiaye ma Malick Ndiaye Malick Thiandoum man buy reporté xola sama xol day sedd buy non xam nga rek yaa ma gën a xam mais no mënu ma si jaar mais xam nga moom ay français la yor bu ko neexee génn france bu ko neexee génn anglais Malick daal ma ma maa ngi lay ñaanal macha allah dama bëgg rek combat bi ngeen leeral ko waaw Tapha Gueye Tapha Gueye Tapha Gueye émission Tigre déglu ma ak yow rek Tapha Gueye émission Tigre lii dafa leer kii dama ko dafa daw di ma plaqué ma dóor ko ma dóor ko ans mboot ko mbootu colal mu daanu mu leer naññ si kanamu nit ñi moo nii na ko ñëpp gis. sunu tisi dafa teg dënn. Eh, teg sikkim sunu gi sunu yaa ngi dégg teg mbagg. kon lii dafa leer naññ. ay mbokki Sénégal dañ ne bu lamb sàjjee mbër ma waaf ca géew waaye bi yoon ki sàjji lamb ji mooy le numéro un Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mbokk yi nga xamante mooy a organiser gën a xarañ seen génération kii Fallou daa dugg Fass jël fa xale bi nga xam mooy espoir ba dem parcelle boole kooku espoir parcelle muy Ada Fass ak Tafa Mbër mbokk ñoom ñaar seen combat bisu le 31 octobre lay am fan lay xewee ñu ne stadium Iba Mar Diop combat bu mag bi Ada Fass ak Tapha Mbeur mbokk yi ñu tuddee ko ki nga xam mooy jeu technique l'ancien lutteur ki nga xam moo bàyyi làmb ñëw ne day jàppale làmb waaye Fallou Ndiaye na yemuma foofu damaa jël yeneen nga xamante ni kër gënu leen a xarañ ci làmb xam ngeen Mor Kankang bu feccee mu neex bu bàkkoo mu neex bu bëree mu neex kuñ ko bi moom it bu feccee mu neex bu bëree mu neex mbokk yi ñaari xale yooyu la Fallou Ndiaye ne jël duppee ko ki nga xamante ni mooy Papa Ndour mu baax mi mbokk yi Fallou Ndiaye moom lay sargal ci bis boobu waaye yamu ci ne Hercule de boole kook armée bu ngéwél laa ilaha illallah mbokk yi ndaw combat bu rëy combat boobu mbokk moom la Fallou Ndiaye jël tuddee ko ki nga xamante mooy saltige bu mag moom la jël tuddee ko ki nga xamante mooy voyante bu mag bi moom la jël tuddee ko ki nga xamante ni mooy tradipraticien bu mag bi fajkatu aajo bi kookal la ñu ne aj suñu yaay faatu ngoom